naam réew mi bañ na dootuñu nangu kenn noon ñu réew mi bañ na de réew mi bañ na déedéet dootuñu fi nangu doomu jaam